mu nekk des gens responsables il faut que quelqu'un soit plus responsable que l'autre beneen laaj ci biir laaj bi ma lay laaj pour peut-être mu gën a mate ci yow xëy na ci tontu bi mooy mm-hmm. ñi bëgg ñu reprendre processus bi ngir Ousmane ko dugg dafa bokk ci coalition ndax est-ce que dafa bokk ci coalition Diomaye mm-hmm. euh, ci ñoo xamante ne seen souhait mm-hmm. mooy yéene bi ngeen amoon ca njëlbeen mooy Ousmane ko jotee ci nguur gi ak na mu mujjee xëy na neexu leen ba ñu tànn Diomaye ñoo ñu bëggoon loolu njëlbeen taxaw ne tey bu dee possibilité am na ngir Ousmane jotaat ci bokkaat ndax lu ñu xool possibilité boobu noonu est-ce que cette question. Mm-hmm. agité nañ ko ci biir coalition. non agité wuñ ko agité wuñ ko parce que c'est pas ça qui est à l'ordre du jour. ce qui est à l'ordre du jour mooy deux questions moom le président Macky Sall wax mooy la date mënu ma ko fixer man kese foog ngeen ñëw ñu waxtaanee ko. ñu dem dina ko waxtaanee fixé ko ñu ñàkk dem dina ko waxtaanee fixé ko et l'histoire jugera lan mooy ci suñu taxawaay loolu il faut le préciser et je le dis ici <laughs> devant l'histoire bi ci des mu ne le 2 sama mandat ci lay jeex mais balaa may mën a dem il faut mu am beneen mandat beneen président mu dem bay joxe sax ay fourchette naan ay nawete ki ñoomin seen fin ah. juin ah. donc ça veut dire que ci waxtaan bi bëgg na ñu may ko ci mu continuer ba juin buñ ci déggoowee mu yóbbu ko assemblée nationale. waay voté ko mais lii dafa graaw lii communiqué mënu ko faj lii bi ko président Macky Sall waxoon démb képp ku ne ci réew mi tudd Sénégal te bëgg république bëgg démocratie te bañ monarchie da ngaa war a jóg pape taal yi pëna mais jóg mobiliser wu ak fulla ak fayda ku ne la nga yor nga takk ko dajale ñun ñëpp ñu ànd yéen presse bi médecins yi yi. sénégalais yépp ne ko loolu mënul nekk le deux da ngay dem te da ñuy jox élection balaa boobu mooy li def defi ji woon tey ci ngoon waaye noonu duñ def loolu waaye duñ def leneen tamit ah mais il faut aussi que les gens comprennent où on parce que fii délai moo fi amul ah tey la suba. tey la vendredi. vendredi lañ wax samedi dimanche. waay lundi ñu sóobu lundi mu dem sóobu ci dialogam dañ koy bàyyi moom lundi mu ubbi dialogam dialogue ak ki ka neex. gëmoo ni lii yëpp lijjanti nañ ko bu yàgg. ku koy lijjanti. comme koy lijjanti ñun suñu représentant coalition Diomaye président mu candidat yi ñoo bokk yem ñoom ñu bokk xaatim ne demuñu. ci condition yi non il faut pas dire ça loolu. Ah loolu c'est un jeu. qui a été instrumentalisé par une certaine personne pour indi division xam nga lu tax. Hmm. ñi dem ci président Ousmane Sonko wax nañu. te démb président Macky Sall même bu nit ñi gëmul ay waxam moom tamit wax na. nee na wax na ba setal na président Ousmane Sonko ni laaju ko dara. nee na moom génne na sax boppam nee na ñu doon dox jàmm ñoo ñëw ci moom posé ko la demande mu ne opposé wu ci te ñu dañu taxaw ci penc bi ne moo leen yónni kon na ko lijjanti ak ñoom mais en tout cas li wóor ba wóor mooy. Hmm. ñaari nit ñëpp mooy ñi wax ni dañoo dem médiation ak moom mi wax ñoom ñëpp wane nañu ni du Ousmane Sonko mooy demandeur te xam nañu on connaît le président Ousmane Sonko. on sait que le président Ousmane Sonko li mu bâtir ba fii du taxaw di demandeur de quoi que ce soit mais man a Bousso si ma voix peut arriver quelque part je demande la libération du président Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye je demande au président Macky Sall avant qu'il démarre hmm. ne serait-ce que son semblant de dialogue là moo xam nag ku ko si fekk si xamaguma ko na joxe des gages parce que le 4 avril bi mu ñu invité ñun yeewu askan wi dañ ne ko joxoo ñu benn gage bu war a mën a tax ñuy ñëw di toog ci sa wet parce que suñu xale yaa ngi ci kaso bi ba léegi on exige man j'exige des gages sax ko naan su ma amoon gage yooyu tey ci guddi wala ma am ko suba ba pare du loolu kese doyul j'espère j'espère que su ma weesoo gage yooyu acteurs politiques yi dinañ jël seen responsabilité bàyyi le suivisme te nekk de vrais leaders parce qu'un leader il montre le chemin il ne suit pas la clameur populaire ce n'est pas ça ce qu'on attend des acteurs politiques c'est de de s'asseoir et de d'analyser froidement la situation xam li ci mën a nekk ak li ci mënul nekk ñu jéggi seen ay problèmes personnels ñu jàpp ne fii président Macky Sall nekk il faut ñu jóge fi il faut ñu jot suñu réew il faut ñu organiser élection il faut bu laajee dañuy toog waxtaan ak moom dañuy toog waxtaan ak moom njattu loxoom devant nañ ko def sax en direct devant le monde entier et l'opinion internationale ñu ne ko lii lañuy ñuy ñii lañ ko bëggee date bii lañ ko bëggee nii d'accord ñu ci lii bu ko defee sénégalais àdduna bi yëpp xam ni def na ko def na un pas bu ko deful ñëpp xam ni kii jarutu waxtaanal nañ jàkkaarloog moom xeex mais munuñu. mais non non non non non non. dañu manqué sincérité. non c'est pas ça je je je vais pas faire des jugements de valeur. ku hmm. ci manqué sincérité yaa ko xam mais je dis tout simplement man je n'ai pas les mêmes problèmes que la plupart des gens qui se disent opposition parce que moi je suis outré moi je suis pour l'unité de l'opposition mais de quelle opposition on parle. Uh-huh. moi je m'unis avec les gens yu nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk principe maa ngi ñoom ñoo bokk jëmuwaay maa ngi ñoom ñoo bokk ay valeurs am na bëri ñoo xam ne tey ñu ngi ci groupe bii. ne ñoo bokk valeur mais c'est juste une question de temps suba bu ñu tëggoon kàcc gi nga gis lépp. Hmm? dootoo comprendre dara li leen boole woon tey moo leen di tàqali suba parce que y a des gens le seul fait de penser que Ousmane Sonko peut être libéré hmm. à l'issue de sa dialogue ils n'en veulent pas et pourquoi donc on ne peut pas libérer le président Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye pourquoi on peut pas continuer la libération de ces détenus politiques là a bien commencé il faut continuer. même si on réclame justice. am na ñu ñu bàyyi tamit on réclame justice on réclame réparation mais on veut que président Macky Sall na ci continuer bu mu déglu borom gémmi ñu yu yu yu yu yuy nàcc yi ñu nekk ci wetam naan ko waroo bàyyi ñii ñu ngi leen di bàyyi dafa ëpp moo leen jàppoon na leen bàyyi. politique a taxoon mu jàpp leen na leen bàyyi na am courage bàyyi leen de façon politique président Macky Sall na am courage bàyyi le président Ousmane Sonko bàyyi Bassirou Diomaye Faye pacifier espace public bi comme ni mu koy waxee. na am courage u jàkkaarloog les candidats ne leen lii moo mën a nekk waaye itam surtout na bàyyi suñu réew mi mais gëm naa ni moom nii mu ci jàppee nii ak waxam ji ni mu ko waxee nii du ay communiqué ak i conférence de presse ñooy tax mu bàyyi il faut aller chercher il faut aller chercher ce qui est à il faut avoir ce courage la il faut avoir cette détermination il faut avoir pitié du peuple Pape Ousmane Sénégalais ñu sonn lu ñu mënoon def nañ ko wàcc nañ ci mbedd yi xeex nañu tëj nañu leen rey nañu leen suul nañu leen boom nañu leen exilé nañu leen blessé nañu leen dañu sonn dañ ci bëgg a génn est-ce que bu ñu continuer di xeex man maay dee man su may dem manifestation damay ànd ak ay sécurité am naa oto xanaa accident mun na am mais gis nga nii on est bien encadré et nos jeunes nos enfants ils meurent qu'est-ce qu'on doit pour ça il faut que ça cesse le président Macky Sall euh, dafa dem di dëpp kart gi du respecté kàddoom ba tey tax na kenn wóoluwu ko kenn wóoluwu ko ba tax mu am crise bii mais crise bii dépassement mooy tax ñu génn ci dépassement bi nag fenn rek la mun a jóge mooy ci askan wi mooy ci politique yi mooy ci ñi bëgg a jiite c'est à ce dépassement là dont j'appelle il faut que ñu def table rase. Hmm. il faut que ñu ñu mën a am capacité d'oublier ce que le président Macky Sall nous a fait pas oublier pour effacer. mais oublier pour aller de l'avant parce qu'on veut ce pays on veut ce pays même s'il faut aller aux élections n'importe qui gagne que ce soit pas nous mais on a on besoin on a besoin de nous pour cette grandeur si aussi on décide de dire non on ne va pas jouer le jeu on ne va pas faire de sacrifice on va pas faire de concession dañ lay bàyyi yow kese dañu war a taxaw tere ko mu def dialogue bi bii man loolu laa mën a comprendre. finalement dafa mel ni vous souffrez hein. man sama mën a comprendre. mooy duma dem dialogue mais doo fi dialogue lu may tënk mais du ma dem dialogue mais dialogue lu la neex tënk ma. suba ñu ñu yëg ko teg ko ci sama kaw parce que ay nit ñoo xamante ne tekkiwuñu dara ñoo dem xaatim ko après ñu wëraat télé yeeg caméra yeeg plateau yi di wax non loolu c'est irresponsable fi Sénégal tollu en 2024 fii c'est irresponsable moi c'est ce que je dis cela n'engage que Maïmouna Bousso mais c'est ce que je dis parce que beaucoup de gens parlent ouais. et je ne veux pas être mélangé à, à toutes ces voix qui crient je voudrais que les gens prennent la peine de m'écouter avec le cœur et de ne pas m'écouter de m'écouter avec la tête et pas avec le cœur je voudrais que les gens comprennent pourquoi ça man depuis 2013 maa ngi opposé wu au président Macky Sall depuis 2012 maa ngi politique moi j'ai pas besoin d'arriver en 2024 où tout le peuple dit non je dis réfléchissons sans pour autant dire oui complet mais je dis nañ taxaw xoolaat li ñu bëgg a wax nii lan la ak bu ñu ko waxee fu mu ñu jëmee ak c'est quoi les risques ñi may déglu kenn ci ñoom du wax ne non président Ousmane Maïmouna Bousso dafa retourner vestam parce que xam nañu ma. su ma amoon benn intérêt bu ma am présent président Macky Sall du ma opposé wu ba fii dépassé naa loolu ça ne m'intéresse même pas de faire partie de participer à son dialogue c'est pas ça le débat. Ouais. le débat c'est que il a amené le pays dans une impasse au-delà ñuy jaay xam-xam. au-delà de kenn su ñun ku nekk wax ne constitution bi violé na ko ci article nangam def na ci def ne lan mooy solution bi pour mu liggéey pour liy jeex na lañ ciy génnee ñaar kese moo am. ñaar da waxtaan baa nga xeex amul leneen. te bi gën ci yow mooy ñu waxtaan parce que. non bu gën ci man xeex mooy ñun dañu waroon xeex ñun. ñu war a jiite xeex bi pas xeexlu muy xeex. Hmm. lan la jaral classe politique bi mu jaral xale yi kaso jaral leen dee ñun jaraluñ sax jàpp nañ ñëpp joxante rendez-vous le dimanche vingt cinq février mu nekkoon jour de vote. si toute la classe politique et sérieuse gëm na li muy wax na Sénégal toute la classe politique et les syndicats na ñëpp tase joxante un lieu ñu jàpp ñoom ñëpp bu kenn des ci ginnaaw l'histoire retiendra que jour bu ñu waroon def élection toute l'opposition laa wax du dañu solidarité de l'opposition hmm. solidarité lañ wax na qu'on se donne la main mais dans la main ñun ñëpp ñu dem ak aar sunu élection ak ñëpp bu kenn des ginnaaw toutes les plateformes FDD tout le monde jaral ñu loolu bu ñu ko jaralul qu'est-ce qu'on décide de fair lu ñuy teg ci loxo sénégalais sénégalais yépp xam nañu président Macky Sall dafa violer la constitution daf ko jalgati li mu def tegu ko fenn dafa def coup d'état constitutionnel amul droit toog fi au-delà du deux nan la ñuy nan la lii nan la jeexee damay toog bàyyi ko moom ma toog jam ñaajo di di di di di di di wala dañuy dajaloo mobiliser wu dem jam ñaajo tere ko mu dialogue. pourquoi les gens parlent à notre nom. moom violé na déjà une constitution jël loi boo xam tegu ko fen mu yóbbu ko assemblée nationale voté loo ko conseil constitutionnel nekk amoo ci woon droit léegi dañ koy bàyyi mu waxtaan ak ay ñooñam delluwaat encore assemblée nationale validé waat ko après ñu waraat plateau yi di wax. je suis d' accord ci ay waxam ne woon na ni bëri na ci candidat yi ci ëpp ci limu candidat yi d' accord woon nañu. démb bi muy wax waaw. wute na nag ak li ñu gis ci déclaration yi tey. comme li nga wax sànq mais am na lu ci leeral waaw tey dafa sore. ah waaw. moo tax bi tous les gens ñu topp clameur bi ñu def recul hmm. ku wax noo xoolal lu tax mu wax noo quels sont ses intérêts lan la ragal qu'est-ce qu'il perd et qu'est-ce qu'il gagne